أكمت يا أكم باخي بكون يا سا فوزي بما قاب من بسراك يا الله علاك يا عدل داعي بخير لقاء ولا ñaanal kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom guddal fanam lool sunu borom may ko kàttan ak fanwu gudd ba mu eggalee bépp projet boo xam ne naal na ko wala bépp naal ba mu naal ci lislaam ak yoonu Seexul Xadiim di ko ñaanal njabootuk Sëriñ Tuubaa gépp ak taalibe yépp nu ànd ko moom yàgg ci ginnaaw di jéggalu bu baax eh, yeexaayu yeexa yeexa agsi gi ngir gàllankoori tukki ak liggéey moo ñu tënkoon noo di ko jéggalu bu baax mbooloo mi nga xam ne ñoo sos jotaay yi ak ñi nga xam ne ñoo ko ànd ak ñoom ci di ci jariñoo nuy am mbégte lool it di bokk ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi di ñaan tamit sunu boroom defal na ci yoolu kuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa di nuyu bu baax ak di siyaare sunu kilifa sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko jaarale ci moom nuyu kilifa yi fi nekk yépp ak mbokki taalibe di sant bu baax sëñ Mourtada Sylla mi doon ubbi jotaay bi ci kàddu yu am solo yi ak ci ni mu nu yombal ni mu yombalee yombalale tàmbaleeg waxtaan bi walla dugg ci biir waxtaan bi mu mel ne bari na ci loo xam ne ni mu ko waxee noonu lay gën a leere dinañu mën a permettre ñu mën a dugg ci waxtaan wi ci lu gaaw tënk ko tënk bu gaaw insha allah su ko defee mawdon bi nga xam ne moom la ñu sas ngir ñu laabirante ci mel ne ni ko sëñ Mortada waxee def nañ ko ay yoon xëy na donte léeg-léeg euh, siira yi mën naa wuute ci ni ñuy tëggee euh, dem yi waaye lu ci bare bari jublu gi benn lay doon wala day doon lu jege euh, bu yàggut rek def nañ lu mel noonu ci Daaru Karim boo xam ne technologie ak yoonu murid lay doon donte technologie moo gën a wala technologie ak l'islam donte technologie mooy gën a yaatu waaye bii nag benn la ci meññeeti yi mooy thème bi nga xam ne moom la waxtaanee tey muy xanaatu tawaasul ak ija ijaabiyaatuha wa salbiyaatuha maanaam boo ko doon tekk ci tubaab mooy les réseaux sociaux avantage et inconvénients ba tey mooy rek barab yi nga xam ne ci ay réseau la aju nit ñi di fa daje ay nit nag fu ñuy daje fu dana am lu fay jariñ dana am lu fay lor su ko defee tomb yi niñ ko tënkee suñ Mortada wax na ko du jar ñu jaaraat ci ba ca njëkk mooy xamle walla boog jéem a tënk wax lan mooy réseaux sociaux buñ ko waxee luñ ci jublu réseaux sociaux tamit buñ ko waxee jublu gi mënees na ne ku xam liñ naan site internet site internet ñu bari xam nañ ko site internet euh, dafa bokk moom it ci meññeti nouvelle technologie dafa am lu tubaab di tuddee technologie de l'information et de la communication technologie de l'information et de la communication nag dafa am ay jaar-jaar yu mu jaar yu bare bare bare bare yoo xam ne xëy na du mawdu bi moo tax duñ ci sori waaye daal am na ay étape hmm? mu ne d'accord euh, kon am na ay étapes yu bari yu mu jaar yoo xam ne euh, diggante 1950 ba mille ba vers 2000 2004 2005 2006 diggante yooyu fu ci nekk am na ay tolluwaay yu mu toll ci wàllu développement ci wàllu avancement waxtu wu nekk ak fa muy toll ak la cay yokk la ciy dolli ko mbiri internet moomu ak informatique dafa am nag ay résultats wala ay meññat yu ca juddoo yoo xam ne réseau sociaux mii ñuy wax ci la bokk xëy na Sénégal boo waxee réseau sociaux ñu ci bare bari lenn la ñuy xalaat mooy liñ naan Facebook Facebook benn la ci réseau sociaux yi benn la réseaux sociaux yi yu bare bari la waaye xëy na ñun liñ gën a xam mooy loolu Facebook wala liñ naan WhatsApp yooyu yëpp yooyu yëpp exemple la ci ay ci buñ nee réseaux sociaux liñ ci jublu kon ni ma ko waxee léegi man nees na ne day nekk nag moom ab site internet site internet site internet tamit ni ma ko waxee tolluwaay la ci wàllu informatique bi informatique développé dañoo dem ba ay jamono Euh, at yu yàggut ñu découvrir ne mën nañoo sos liñ naan site internet nit ki am site boo xam ne ci lay jàllale information wala lépp lu mu bëgg kon réseau sociaux tamit bu ko waxee ab site internet lay nekk maanaam site internet boo xam ne dina permettre wala dina may société bi ndax sociaux buñ ko waxee rek mooy loo xam ne xëy na maanaam askan wi wala bokk réew mi wala peuple bi wala nit ñi euh, peuple monde bi laay wax am nañu lu leen permettre wala lu leen mën a may ñuy man di jokkoo kon xeetu jokkaloo la boo xam ne dañ koo sos muy mën a dox ci diggante nit ñi man leen a permettre ñuy def liñ naan échange maanaam ñuy weccante ci ay wax wala lu ñuy envoyante ak ak yu ne mel kon loolu lay nekk rek su ko defee dinañ am possibilité mën a mën a sos mën a créer liñ naan ay page page wala ay compte xëy na loolu ñu baree bari xam nañ ko ñi nga xam ne ñooy utiliser euh, réseau social boobu tudd Facebook waaye nag mën nga ko ci fu baree bari ci réseau parce que buñ nee sociaux rek réseau sociaux buñ ko waxee rek mooy wane ne jamono la yu baree bari la réseau yu bari la léegi nag soo foofu kon dan dañ faa sos loo xam ne dina la permettre yow nga mën a am fàkk fa wala wut fa sa sa sa sa sa dëkkuwaay wala sa sa barab barab bi mën naa nekk page page moo gën a yaatu mën naa nekk compte loo xam ne sa fi bopp lay doon kon suñu waxee réseaux sociaux rek loolu la loolu tamit lim lay lim lay jariñ wala lim liñ ciy def mooy dina la mën a permettre nga man ci di partager partager information information it buñ ko waxee mën naa nekk luñ bind mën naa nekk luñ wax mën naa nekk image mën naa nekk vidéo yu bëree bëri la dina permettre tamit nga man di eh, échange échange mooy jo jokkalante ay wax maanaam wax ak nit di wax ak nit wala yu mel noonu kon ci tënk rek loolu mooy jëmmi réseaux sociaux bu ñu ko waxee rek mooy loo xam ne day jegeele nit ñi ba ñu man di jokkaloo di man di def ay échange seen diggante moom nag euh, kañ la sosu mooy li ma wax léegi ginnaaw bi internet sosoo ba jaar ci ay étapes yu bari nga xam ne ni ma ko waxee léegi waxtu wi duñu ko may bañ demee ba ci xëy na ci vers 1995 américains yi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a ci loolu gis nañ ne foofu la tàmbalee ci ñoom xëy na ñun ñoo ko mujjee am euh, Afrique ak rawatina Afrique Afrique ak Europe rawatina Afrique waaye américains yi ñoom soriwul 1995 am na ci yenn nat ci ay réseaux sociaux yoo xam ne tàmbale woon naa feeñ foofu waaye bi demee ba ci atum nag ci la tàmbalee tasaaroo. ci yeneen gox yu baree baree bari yu mel ne ak ci yeneen continent yi fu mel ne euh, Europe euh, Europe sax xëy na jiit na loolu waaye fu mel ne Afrique ñun moom Afrique xëy na wet googu lañ ko lañ ko tàmbali jëfandikoo booba it am na ay réseaux sociaux yu fi nekkoon yoo xam ne euh, maasug sëñ Mourtala Sylla yi nga xam ne yàgg nañ ci noo dugg ci kii yi boo fàttalikoo amoon na yu fi tuddoon high five amoon na yu tuddoon MySpace amoon na yu doon MSN xeet yu mel noonu ah, yëf yi day dox yooyu mooy moo fi njëkkoon moo fi njëkkoon lu jiitu ñuy xam ay Facebook ak ay euh, nu ñu koy waxeeti euh, YouTube WhatsApp ak yu mel noonu yooyu xëy na yàggut waaye yee ñëw jiitu woon yooyu it bañ ñëwee xëy na am na daan nañ leen jëfandikoo bu baax a baax a baax waaye nekkutoon loo xam ne it euh, lu tasaaroo woon la ba ñëpp daan ko daan daan daan ko boo seetloo benn benn ci réew mi wala ci Afrique surtout Sénégal Sénégal sax boo xoolee ci Afrique ñoom euh, bokk nañ ci réew yi ci gën a teel a avancé ñoom euh, macha allah waaye xëy na dëgg-dëgg njariñ leen buñ ñëwee ba ci kanam dina gën a leer moo leen di dese waaye teel koo découvrir moom def nañ ko ba boo seetloo ñi njëkk a am ay xeeti page wala ay compte Facebook ay compte compte personnel boog damaa juum compte personnel boo seetloo ñooñu euh, ñoom ñëpp amoon nañ xeeti réseaux sociaux yi daan nañ ci dugg Euh, su ko defee euh, ba ñu demee nag ba ci ba ci ba ci ba ci jamono yooyu ay ñaari at defe naa ginnaaw bi ci la yenn réseaux sociaux génnaat réseau sociaux mi ñuy wax ci la génnaat bi ñuy tuddee Facebook ci la mujj génn moom Facebook nag euh, ñu ngi ko sos ci soriwut at yooyu ma wax léegi xëy na ba muy soog a génn taxutoon mu am benn benn benn siiw gi wala boog benn tasaaroo gi daanaka moog ñee ñoo xawoon a yam ndax moog ñee sax fe moog ñi ma mu njëkk a tudd yéeg fekkante nañ fi lu yàgg yàgg yàgg waaye xëy na boobu taxutoon mu am yenn doole yi taxutoon tamit nit ñi jublu jublu ko génn jublu gi moom nag euh, Facebook benn benn xale américain bu ñuy wax Mark Zuckerberg moo ko sos mi ngi ko sos ci defe naa 2004 la moom it moom mi ko sos mi ngi gane àdduna atum 1984 li lay xamal ne maanaam boo xoolee rek war ngaa xam njariñ li mooy objectif bi taxoon ñu sos ko maanaam hadaf bi ñu ci amoon bu dee Facebook réseau social la boo xam ne ki ko sos bi mu koy sos dafa nekk ci benn université bi jàng bi mu nekkee ci benn université bi moom dafa spécialisé wu maanaam dafa taxasus ci wàllu euh, informatique léegi nag ci la xalaatee ne wala boog ñam doon kiyal ñu xalaat ne war nañoo sos benn réseau boo xam ne dafa ñuy lëkkale ñun ñuy jàngee ci université bi ngir ñuy man di def ay échange ci suñuy cours yi ñuy jàng ak yu mel noonu nga xam ne barab la boo xam ne barabu ci barabu jàngukaay la sosoo maanaam ci université la sosoo la taxoon ñu sos ko tamit mooy jàng ak jàngale su ko defee ñuy man di partager information yi nga xam ne moom la ñuy jàng ci université bi kon sabab boobu moo taxoon ñu sos réseau social boobu di Facebook kon foofu rek da ngir dugg ngir ngir wax njariñ yeeg lor yi da ngay gis ne foofu kon njariñ li li ko waroon tax a jóg mooy jàng ak jàngale moo waroon a tax a jóg Facebook ak yu mel ne moom bi yeneen réseaux social yëpp xëy na dañuy jël Facebook comme exemple ci yeneen réseaux sociaux yi parce que moom mooy réseau sociale bi gën a bi gën a bi gën a ëpp luñ koy jëfandikoo bi gën a siiw te it euh, mel na ne euh, ci wàllu nombre ñi koy jëfandikoo daanaka boo jëloon àdduna ñi fi nekk ñëpp nga xaaj ko ñeenti xaaj benn xaaj ba yëpp dañ koy jëfandikoo nga xam ne lu jege 2 milliards de personnes yoo xam ne ñëpp am nañ ay compte Facebook boole ci ay euh, page yi ca ajoog groupe yi ak étaris yëpp donc kon mel na ne ñi koy jëfandikoo ci àdduna bari na léegi nag lu mel noonu nga xam ne lu jege ñaari milliards yi nit dañ fay nekk te lu jege ñaari milliards yi nit yooyu la leen fa dajale du diine diine dajewul leen fa su boobaa nga gis ca luy lor mel na ne mooy gën a yomb sax nga gis ta loo xam ne lu lay jariñ lay doon te lu ëpp euh, ni ma ko waxee léegi ci ñooñu boo seetloo yeneeni gëm-gëm ñoo fay nekk maanaam dañuy doon ñoo xam ne diine tënku leen ñi ko sos tamit bañ koy sos bàyyiwuñu xel jenn diine amut jenn diine juñ ci bàyyi xel moo xam christianisme la judaïsme lislaam ñoom seen yoon nekkul ci pas-pas seen yoon nekkul ci gëm-gëm waaye nag ginnaaw ak njullit moom xëy na mooy gën a dëgër te ñooy ëpp maanaam euh, kàttanuk imaan ñoom ñoo koy gën a am léeg-léeg ñu bëgg a dugg ci système boobu dafa leen di indil ay jafe-jafe parce que système la boo xam ne ña ko sos xëy na ñoom seen yoon nekkut ci lislaam ñoom dañoo sos loo xam ne nit ki maanaam moo xam laïcité gëm wala liberté d'expression nga gëm mooy lu la neex ngay fay fa la ñuy jaare bokk di doxal seeni biir yoo xam ne lu leen neex wax wala lu leen neex def wala yeneen ak yeneen donc yow mi nga xam ne nag dangaa nekk ab jullit nga am yoo xam ne da nga koy bàyyi xel bëgg a ñëw dund ci système boobu daf lay indil jafe-jafe loolu mooy tax ñun ñu mën a toog bi ci gis ci wàllu inconvénient ci wàllu salbiyaat yi bu ñu ko doon wax danañ ci wax salbiyaat yoo xam ne xëy na ka gëmut ka amul diine moom moom yoonam nekkut ci lu mel noonu moom yoonam nekkut ci loolu moom xëy na dina la wax ay inconvénient waaye inconvénient yim la ciy wax yépp ci àdduna lay yem léegi nag yow mi nga xam ne da ngaa bëgg a boole àdduna ak alaaxira yow yaay am mu xam nan ngay jëfandikoo réseau sociaux bi wala réseau social bu lu mel ne Facebook lu mel ne YouTube lu mel ne WhatsApp ak yenn bu ci nekk donc kon kooku bu ñëwee bëgg dëkk ak ñee wala bëgg a maslaak ñee ci loo xam ne ñoom ñoo ko sos ñoom seen système lañ ko defee nga bëgg a ñëw dund su boobaa yow sa dund dina xaw a doy waar kon lii am solo boobaa ci jullit bi wala ci ab taalibe saa su ne rek muy bàyyi xel ne maanaam euh, yàlla sunu borom lépp lu mën a nekk rek daf caa war a bàyyi xel sunu borom nga xam ne mbir mu mën a doon ci àdduna daf cay bàyyi xel sunu borom waaye daf caa war a bàyyi xel tamit mbir mii ma nekk njariñ li fan la yem ak fan la tàmbalee wala fan la tàmbale fan la yem ak lore yi ci nekk fan la mooy loolu sëñ bi doon leeral sëñ bi mag bi doon leeral ci diggante fulla ak fayda ak farlo nga xam ne su boobaa danga nga cee def fayda ju sëkk fu ca baax yem nga yem ca waaye nag léeg-léeg dafa ci am yoo xam ne it donte jubluwoo ko ci euh, li tubaab naan ay obstacle lay nekk maanaam maanaam euh, nañ koy waxee waxeeti loo xam ne ay gàllankoor la ay gàllankoor la yoo xam ne daf la ciy dal te doo ko ci jublu te doo ko ci jublu te it faw nga jëfandikoo ko donc kon su boobaa loolu yow jullit bi dinga am jafe-jafe ndax jullit bi yow su boobaa li nga war a njëkk mettre euh, ni ñu ko waxeeti ni nga war a njëkk teg ci taabal ji xalaat ci mooy man lii may jëfandikoo ban atte la am ci sharia ndax euh, booy tàmbalee jàng diine dañ lay jàngal ne la mu kàllaf war te def lenn loo xam ne xamul atteem ci diine kon su boobaa yow li li nga war a njëkk remettre en cause def li ñu naan introspection maanaam laaj sa bopp man lii may def lan mooy atteem ci diine su fekkee def nga sa ijtihaad xamoo nga laaj ñoom sañ Murtada si la ñi nga xam ne xëy na spécialisé wu nañ ci loolu bañ jafal la ci fatwa bu leer ci ne lii kat mën nga koo jëfandikoo ku déglu waxtaan wi sëñ Sam Bousso ma sa def Daaru Muxti ci euh, technologie ak l'islam mel na ne indi woon na ci ay leeral yoo xam ne euh, am na ay qaacida yoo xam ne buñ ci sukkandikoo dinañ xam ne warees na koo mën a jëfandikoo lu mel ne al aslu fi l ashyaa'i al ibaha ak euh, boo eggee ci xay na euh, cas de force majeure mooy daruri ak yu mel noonu lenn lu ci ku ko déglu da nga ci am lu gën a leer ci wàllu fiq ni nga xam ne noonu la indee àtte bi nga xam ne moo ñu mën a permettre pour ñu man bi jëfandikoo jumtukaay yu bees yi waaye soo koy jëfandikoo tamit lu loo ca yàgg-yàgg wala loo ca xuus-xuus faw bul bàyyi bul fàtte maanaam ne am nga identité culturelle moo xam wolof nga wala beneen feneen foo mën a bokk waaye am nga identité culturelle boo xam ne da nga koo war di bàyyi xel warula la ko yàqal waaye tamit bu fekkente ne bii am nga beneen pas-pas moo xam ab jullit nga rawatina nga doon taalibe it kon daf lay daf daf loolu dafay wane ne am na foo ci war a tàmbalee am na foo ci war a yem am na foo ci war a dugg ak foo ci war a dugg te dafay barab boo xam ne ni ma ko waxee léegi gis fa lu bon wala gis fa ab safaan moo gën a yomb gis baax léegi nag yow mi nga xam ne dañ laa yar yar bu baax nga bëgg a ñëw dugg foofu di nga am jafe-jafe donc kon foofu li nga ci xamee mooy réseau sociaux mu baax mu bon mu am euh, avantage wala mu am inconvénient li ëpp solo mooy nit ki nit ki nga xam ne moo koy jëfandikoo ban ban nit la ndax bu fekkente ne bii day nit koo xam ne li war a ne ci moom lépp nekk na ci moom niñ ko war a waajalee waajalee nañ ko ko bu dee taalibe la melokaanu taalibe daje na ci moom bu dee jullit la melokaanu jullit moom it daje ci ñoom dolli taalibe gi yar nañ ko jàngal nañ ko ya ca aju yépp ci doomu aadama ni ni nga xam ne noonu la sëriñ bi décrire wala noonu la lislaam bëgg doomu aadama mel ko su ko melee rek su boobaa lum ci dugg lu ci doon lu ci nekk rek mën na cee am mujj gu rafet waaye amaana bu fekkee koo xam ne euh, la ca gën a euh, ci wàllu li nga xam ne mooy lu élémentaire mooy nit ki la mu war a xam bu fekkee la nga war a xam xamoo ko rek foofa la jafe-jafe bi tàmbalee boo bu dolli ci nag na nga war a mel ndax mel nga ko meloo ko su boobaa boo fa duggee mën naa nekk lu dangereux ci yow donc kon utilisation bi rek am na ci ñoo xam ne war nañ koo jëfandikoo am ci ñoo xam ne waruñu koo jëfandikoo ñi ko wërte jëfandikoo rawatina rawatina ci ñi ko wërte jëfandikoo mooy ñi nga xam ne xamuñu ko ñi nga xam ne xamuñ ko ndax nit ki lu mu xamut ci lañ ko mën a nax ci la ci ci la ci lañ ko mën a indilee ay jafe-jafe boo seetloo at yi weesu réseaux sociaux yi problème bu fi am man nga ne quatre-vingt-dix pour cent yi lépp fa lay bàyyi ko te loolu li koy waral mooy ñàkk xam danger danger bi nekk ci lii muy jëfandikoo lu mu doon ndax misaal moom simple moo ma ciy joxe rek réseaux sociaux wala internet mooy loo xam ne boo ci xësee dugal dara dootu deñ mukk ci àdduna ñun ñëpp kenn ku ci nekk am nga say compte Facebook ak nangam ak nangam bis bu ne nga publier dara loolu ngay publier nag boo xëyee supprimer ko mooy effacer ko jàpp ne dañ na yow yaa gëm ne dañ na waaye ñoom am nañ seeni serveur yu ñu ko denc yoo xam ne bis dana ñëw ñu génneel la ko akamta yaa akamul baaxi bi kaw mi yaa saa fawsi bi maa qaaba min بسراك يا الله ألاك يا عدل داعي بخير قاس ولا